bismillahi rahmaani rahim aouzu billahi min cheytaan rajim laa xawla wala xawwata illa billahi al azim uh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu tout d'abord ñu ngi leen di nuyu uh, di leen ziyaara aussi di leen wax ni suñu teewaay fii tey mooy rendre hommage suñu papa suñu nijaay suñu xarit suñu soppe Cheikh Tidiane Diop Euh, rendre hommage nag buñ koy wax dara gënu cee kawe wàcceel nit ki kaamil wala nga ñaaneel ko parce que fee ñu jëm ñaan rek moo ñu fay jariñ te yiw du fa doy loolu moo taxoon tey tout daaray ko ci tey fii à la Médina si kër Cheikh Tidiane Diop ñaanal ko yàlla moom ak bépp élément daaray Kocc boo xam ni yaa ngi woon biir daaray Kocc di artiste comédien ou comédienne daawee ko fi jëm àllaaxira di leen ñaanal ñoom ñëpp te Cheikh Tidiane Diop nekk sa bopp ba yàlla na leen yàlla yërëm yàlla na leen yàlla xare àjjanay firdawsi yàlla na rëccu luñ doon def yàlla na àllaaxira dañ son noflaay kon loolu moo doon but bi pour ñu ñëw fii Médina tey dans les normes sax fii dafa waroon fees dell am na ñoo xam dañu am tuuti gàllankoor wala ay contrainte moom daa tax ñëwuñu quoi mais ñuy ñaanal suñu papa suñu xarit Cheikh Tidiane Diop. yàlla yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na yàlla yéege maxaamam sa àjjana yi gën a kawe ak mbooloom artiste boo xam ni daaw weekoo nga si daara ko ci jëm si àllaaxira waaw xam nga Cheikh dafa nekkoon koo xam ni non seulement rek ñun dañu yar ba pare suñu kër mu ñëw mu dolli ñu avec sa personnalité sa dignité daan nañu xamal toujours que ni artiste warul nekk n'importe qui warul ñàkk fayda warul nekk koo xam ni dafa nekk benn xobu garab bu ne ci mbedd mi rek ngelaw lu ñëw rek. pousse ko ba fële mu taf ko ci miir bi beneen ngelaw ñëw yóbbu ko dañu doon xamal ni artiste lu mu war yor mooy dafay am ngëm-ngëmu xeer doj nga xam ne bu ngelaw li ñëwee fi la koy bàyyi loolu moo tax bëggul woon lépp loo doon am daf la bëgg mu fekk la biir ko ci bëggul woon benn artiste boo xam da ngay dem di fëgg ci bureau nit ñi wala ci benn réalisateur naan kan jël ma tel ou film wala jox ma publicité loolu rek la Cheikh bañoon si àddunaam bëggoon na aussi nit koo xam ne doo taxawaalu ci mbedd mi foo liggéeyee ba pare dem nga sa yoon maanaam ko xam ne dafa am dignité am personnalité nekk dëgg-dëgg jullit comme ni mu ko doon wane mais dafa fekk moom mu jiitu si woon quand même quoi parce que moom lépp lu mu doon wax leen di wax leen waajur yi dafa fekk moom moo ñu jiitu si toppatoo waajur yi bu leen wax ni jàng leen alxuraan dafa fekk moo ñu si jiitu toppaloon leen seen ndey ak seen baay dafa fekk moom moo ñu si jiitu am leen respect nit ku nekk si sa moroom dafa fekk moo ñu si jiitu loolu moo taxan ay nit amoon courage ñëw ba ci moom di ko ñaan ay jabar mu maye si daaray Kocc nag ñu bare bare bare bare macha allah ba pare nag formé fi ay tour yoo xam ne dafay wax ni ah dama bëgg kenn ku nekk ma xam ndeyam baayam chaque mois kenn aye ñu dem ba këram ñu toog mu présenté yaayam yaayam man mi di wax ak yow def na ko sama yaay ni ko ah sa jarbaata ngoog de dénk naa la ko donc yu mel noonu ma ko doon def def le tour ba ñëpp xam kan mooy Cheikh Tidiane Diop parce que ñu bari par non rek lañ ko daan déggee waaw donc euh, loolu la daan liggéey ak ñun noonu la nekk woon ak ñun am leen fulla am leen fayda am leen personalité bu leen taxawaalu bu leen fëgg bureau kenn lépp lu leen lu leen lu leen fekk si na ngeen xam ne seen perso propre personnalité moo leen ko war a jox mais pas ñàkk seen bopp fayda si si si mbedd bi quoi masoon na ma wax aussi benn jour ne un jour viendra da leen wax ni bés dina ñëw yéen artistes yi ngeen di dox ci mbedd ba mu yàgg kenn interpellé leen bu boobaa lu mu ti wax na ngeen ko déglu <laughs> na ngeen ko déglu man bi loolu benn jour mas na ma dal may dox ci mbedd ba mu yàgg benn waay interpellé na waa ji nag ci baatin si zaahir xel mi dafa mel ni neexul noonu quoi mais presque te na ma lu mat cinq minutes quoi di wax ay bla bla quoi mais sama xel dem ci waxu Cheikh Tidiane Diop bi lu ma waxoon ni ku mën a wax ak yéen rek déglu leen ko may déglu ji di déglu ji mais à la fin waa ji ben affaire bu am solo te man maa ngi jàpp woon ni vraiment du nit mu wax lo xamni daf may jariñ aduna daf may jariñ àllaaxira quoi donc mi ngi doon xamal rek ni euh il faut avoir toujours la tête sur les épaules quel que soit alpha avec succès nous ne manti mel bu emporter quoi loolu moo élément Daaray nous amul kenn ku si succès de emporté amul kenn ku amul la tête sur les épaules amul kenn koo xam ne faire des jaay affaire wala genre parce qu'après tout nous daf c'est un boulot comme les autres boulots c'est comme le menuisier c'est comme le mécanicien c'est tout mais après vous voulez ranger vos outils et nekk leen sen bopp voilà donc loolu la daan nekk ak waaw waaw kooku dafay dépendre si les responsables quoi dafay dépendre si Pape Demba Ndiaye xam nga ñun ay élément daara Kocc rek la ñu nekk quoi nekkuñu yoruñu bopp bopp wagon bi mais ñi ngi si vagon bi quand même quoi Ah, waaw xam nga yooyu aussi Pape Demba wax na ko léegi ñu ngi ciy waxtaan te inshallah, allah bu ñu un grand retour rek incha dina baax quoi mais ba mais daaray Kocc ba tey mi ngi fi hein, seulement des fois reculer pour mieux sauter rek lay nekk quoi mais daaray Kocc mu si fi jóg ba mais nag les éléments de daaray Kocc ñu ngi dem un peu partout di dem si yeneen production yi di tourner pour bañ a toog quand même waaw loolu loolu. waaw asalaamaaleykum euh, maa ngi nuyu ñëpp ah, bon aussi maa ngi maa ngi kontaan trop di ñëw sama kër tontons sama kër euh, papa Cheikh Tidiane jóob donc euh, may kontaan lool si bi mu ñëwee fii pour ñaanal bi ma ñëw fii pour ñaanal Cheikh Tidiane jóob ak waa Daara Kocc ci génn àdduna yëpp ak ñi waa ñu nekkul Daara Kocc yal na yàlla yërëm leen yóbbu leen si àjjana yi kaw ya Cheikh dafa nekk xam ne kii ñun ñëpp war nañ ko ñaanal parce que Cheikh moo ñu formé te formé bu ñu formé rëccuwuñ ko quoi. Cheikh daal yal na ko yàlla yërëm yóbbu ko si àjjana yi kawe yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def man rek laay ñaanal Cheikh te saa ba ma jullee fajar maa ngi ñaanal Cheikh Cheikh yàlla yóbbu ko si àjjana yi kawe yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def. waaw Rapathia moom mi ngi si eh, si li Cheikh Tidiane Diop nekk rek Cheikh moo nu jàngal loo xam ne nii maanaam dal leen teey leen bu leen yàkkamti ku yàkkamti yàqule Cheikh moo ñu ko wax jànguñu personnalité ñu xaar suñu yëf ci bu soobee yàlla am nañu ñoo ngi Daaray Kocc mi ngi préparé bu soobee yàlla te incha allah ñëpp daañu gis ni Daaray Kocc ñëwaat na si kàttanu yàlla ni ko Cheikh bëggee woon. salaamaaleykum maa ngi nuyu mbokk i ñu seetaan ñëpp ah di remercier tamit sama gars yi di bu baax bu ñu ma nee frère Paris Mbaye nga dëgg yàlla mu nekk koo xamante ne moo. bëggoon di partager ak moom yàlla dogal ko xam naa ni après ci yow rek laay jàpp quoi. waaw man maa ngi tudd Ngalandou fay dëkk Pikine Ridis ci doom ci Babou Faye ñëw ci bis bii nga xamante ni moom lañ jagleel tey. Euh, daaree ko ci yëpp ñi nga xamante ni génn nañu àdduna rawatina suñu papa ji Cheikh Tidiane Diop ñu nekk këram bi ko fa defee dañuy ñaan rek yàlla nangu ñaan yëpp ci barke Sidna Mohamed. waaw bisu tey bi moom bisu sant yàlla la rek. Euh, comme ni ma ko waxee sànq biñ jàngee kaamil yi ba noppi moo di ne daare Kocc dafa bëgg a feddali kóllëre diggante ak way euh, dawlu Cheikh Tidiane Diop mi nga xam ne nee naa ne kenn ku nekk ci ñun tey ji ginnaaw yàlla loo doon wala luñ tax nit ñi xam la tey moom la ndax ñun ñëpp wax dëgg yàlla kuñ ciy tudd tey jii dara yi ko ci tax ñu jël tuddu té ci loxom lañ jaar ñun ñëpp ba tax ñu xam ñu ñu lu nañu defal ñu ko ci aduna kon bu yalla dogalé mu génn aduna ñu tok war ko ñaanal ñun ñëpp ñu daje fi wax dëgg yalla lu rafet la lu jaadu la lu ñu wara def la tey ñaan sunu borom mu may ñu talak fekke ba mu jot ñu daje fi ci kanamu njabootam di ko ñaanal di ñaanal képp koo xam ne kii àndoon nga ñu nekk daaray Kocc di ñaanal képp koo xam ne kii artiste nga te nekkoon ci dëkk bi sunu borom bi def nga jiituñu ñu jëla ñaanal yàlla xar leen àjjana ñoom ñëpp te ñeex leen fa fekk bi jaay seen i usur barki Cheikhul Khadim waaw xam nga euh, question boobu man dafa naa am dafa am importance dans la mesure su fekkee ne dëkk bi bu ñu xoolee bu baax ne que nit ñi sénégalais yi bon ñu bëgg théâtre lañ bëgg nañ théâtre ñu ngi koy suivre ba lu ñu leen indil ñu suivre ko xool ko. Euh, li may faral di wax souvent nag mooy ñun artistes yi ñun amuñ amuñu droit ñun artistes critiquer dara fii appartient aux téléspectateurs ñiy seetaan ñoom ñoo war a xam ne lii baax na wala lii baaxu waaye ñun kenn ku nekk rek yaa ngi def tey lii am solo ba am solo mooy am na ci lu bari loo xam ne xëy na bu baaxuloon nit ñu luñ ko seetaan am na ñuy def kenn du leen seetaan am na ñuy def ñu ngi leen di seetaan kon mais daaray Kocc dafa am lu ko xamee woon buñu togué ba ba légui e eh, ñu né dañuy waaj pour ci waat comme ni ko Pape Demba waxé légui dafa nané ku ñëpp di sentu bala nga jog war nga waajal sa bop kon donc mën nañ wax né tay ji premier pas la ndax <clears throat> alcorane lañ ko ubé ñaanal way dawli ñaanal suñu pur pour mëna reprendre également d'un pied ferme pour scène bi nga xamné ci lañu ñeneen nekk ci li ci def liñ ci war a def ñu jéem leen cee fekk suñu bay suñu wàll ci ci waar wi euh, daaray Kocc nag defe naa ne ku koy séentu ci <clears throat> jégalu ku koy séentu ci yenn rôle yi wala yenn pièces yi gëw mën a da nga ko fa gis ndax koo xam ne kii ba nga tàmbalee théâtre ba nga ne loo def ñu ne gongo gëw mën a di nga deltuwaat gannaaw ba war a mën a def ñu ne ah ñii de du li leen xamee woon. kon danañ def sunu kéemtalaay kattan ba lépp loo xam ne lii togg nañ ko buñ ko yokkee jox nit ñu danañ ko lekk te du des. ba euh, appel bi ñuy lancé à tous les artistes pas seulement Daaray Kocc artistes boo xoolee actuellement artistes sénégalais yi ñooy miroir réew mi parce que li ëpp ci ci ci ñoom la ñuy xool xale yi ci ñoom lañuy roy artiste bu mën a doon laaw nag pas seulement théâtre yi woykat yi fecckat yi hmm, théâtre kat yi ñëpp laa wax kon donc kenn ku nekk ci ñun war nga mën a am attitude boo xam ne bi lépp loo mën a jouer boo génnee rek doo ruus war nga mën a jouer loo xam ne lii wóor na ne lii ngay jouer sa wayjur bu góor ak sa wayjur jigéen yi la jur sa sëriñ say xarit yi benn bakkan kilifa yi war na mën a toog seetaan la quel que soit nag le mais jiital alal ba tax nga def loo xam ne bu ëllëgee da nga dañ la xeep ëllëgit si biir say doom bu ñu màggee ñaan leen sa yaay wala sa baay fi woon lii gaw ma ne alal jar na ko kon donc euh, message bi may lancé mooy que ñu xool bu baax a baax a baax rôle yuy joué c'est vrai duñ du neex a nangu mais ñi la koy joué la ñoom alal alal lañ ciy wut yow lañ la cee jox la la cee topp ëllëg du ko jar kon donc kenn ku nekk ci ñun war na xool bu baax a baax li muy def alal neex na trop mais nag da xool ëllëg ji parce que woo la jox la rôle nga liir ko mu wóor na ne séquence bi boo ko joué boo génnee coow topp la luñ la ci mën a fay rek jaru ko. waaw ange billahi mina sheytaani rajim euh, ginnaaw bañ sant yàlla julli ci sang bu tedd bi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di kontaan ci laaj bi lool li ñu fi waral tey nag mooy maanaam bu ñu ko mën a tuddee delloo njukkal ndax wax dëgg yàlla ki la yar jàngal la métier bu fi jógee dëgg la sax xëy na daje bi day doog a am waaye mosuñoo fàtte ñi nga xamante ne ñu jiitu ah saa yu ñu jullee dañ leen di ñaanal yal na yàlla yërëm leen yaatal seen bàmmeel wàccee leeram seen kaw si darajey Seydina Muhammad dañ fi daje woon nag pour wàccee kaamil ñi nga xamante ne yàlla daf ñu boole woon ak ñoom ñuy ànd di liggéey te suñ borom def ñu jiitu ji tey ci biir suuf loolu moo waraloon daje bi. wa loolu moom adina koy laaj <laughs> loolu adina moo koy laaj daaray ko sax mosu fi jóg mosu fi jóg te du fi mës a jóg ndax euh, xëy na peut-être daaray ci en général ñoom ñoo dajeegul ndax gëj nañ def produit depuis 2011. mais ñu ci bari si ñun ñu ngi fenc yeneen produit yi te tàggoowuñu benn yoon ñu ngi am suñu groupe WhatsApp. ñu ngi déggante ñu ngi demlante ñu ngi fekkalante ku am bànneex ñu ñëw ku am naqar ñu ñëw ah lu waaye xewle gestu gis say nawle loolu dafay neex mais nag àddina daal mooy laaj retour daaray Kocc waaw asalaamaaleykum mbokk yi nuyu naa leen ziar naa leen ah, di leen ñaanal bëccëgu jàmm ak salaam ah, mbay bëccëg bi soo ma si laajee dama siy sawar ndax ah, bëccëgu mbégte bu ànd ak naqar la ndax du mën a naqar la mooy dañuy waxtaan tey ñun waa daaray Kocc dellu si waat si kër yi nga xam ne mooy suñu kër pap mooy suñu kër mag dina ko xam ne kii lépp lu am si artiste daaray Kocc yi rek moo ko def si ñoom këram lañ toog nii muy tonton Cheikh jaan Diop mu nekkoon ko xam ne ki lépp lu ñu xam ci aar bi ginnaaw yàlla yonante ba moo ñu ko xamal mu génn àdduna nag nekkoon ak yeneen artiste biir daaray Kocc ak yeneen artiste yoo xam sax nekkuñu daaray Kocc yàlla def ñoom ñu jiitu ah ñu waxtaan si biir daal ne war nañ leen wàccil kaamil te kaamil ba fu ñu koy defee kër Tonton Cheikh Tidiane Diop ndax lu jiit njaag moom mooy njaag loola waral suñu tawaay tey bi si bés si kër gi. waaw incha allah loolu moom ñu ngi koy ñaan yàlla borom bi ndax xam nga ñun dañuy sabab rek yàlla mooy dogal ñu ngi koy ñaan yàlla bu baax a baax a baax eh, da su ma bañul woon sax yàlla mere ma dama naan incha allah du yàgg léegi rek ndax ñu ngi si tànk yooyu di ko dox eh, di ko lijjanti di ñaan rek nit ñi ñaanal ñu eh, di ñaan tamit yàlla gën ñoo jàppale ba daal ko ki dellu siwaat ci kanamu seen bi. ndax euh, ñi ko yàkkamti ak ñi ko soxla bari na macha allah ngoon ñi ngi ñaan rek yàlla nañu yàlla euh, jàppale gunge ñu ba li nga xam ne moom la ñu bëgg na sër yàlla nañu ko yàlla yeggalil. waaw ko Daaray Junior da ngeen am projet ou da ngeen nar a fekki seen mag yi Daaray Kocc Junior Daaray Kocc Senior. waaw xëy na question boobu da ngeen koy posé tonton Diop mi nga xam ne moo yor junior. mais bu ñu sañoon lépp doon benn ndax daaray Kocc senior rek daaray Kocc junior boo gisee junior bi mu jógee daaray Kocc bu mag Pape Demba Ndiaye moo njëkk a suñu premier film ak tonton Diop kon lépp sotti ci ak def si la tey daaray Kocc bu mag bu jógee daaray Kocc junior day nekkaat ci seen biir ndax tey am na jeunes yoo xam ne buñ ko soxlaa daaray Kocc junior lañ ko mën jëlee pour ànd ak ñoom mën a liggéey liggéey bu baax waaw ñu ci sant yàlla nag bu baax di wax rek ne ñun ñoo ngi ci seen ginnaaw fuñ ñu soxla suba ba ngoon jot ñoom waa daaray Kocc suñu yaay yi ñun ñoo ngi ci seen ginnaaw waaw kay jërëjëf waaw xëy na question boobu da ngeen koy posé tonton Diop mi nga xam ne moo yor junior mais bu ñu sañoon lépp doon benn ndax daaray Kocc senior rek daaray Kocc junior boo gisee junior bi mu jógee daaray Kocc bu mag Pape Demba Ndiaye moo njëkk a réalisé suñu premier film ak tonton Diop kon lépp sotti ci ak def si la tey daaray Kocc bu mag bu jógee daaray Kocc junior day nekkaat ci seen biir ndax tey am na jeunes yoo xam ne buñ ko soxlaa daaray Kocc junior lañ ko mën a jëlee pour ànd ak ñoom mën a liggéey liggéey bu baax. waaw ñu ci sant yàlla nag bu baax di wax rek ne ñun ñoo ngi ci seen ginnaaw fuñ ñu soxla suba ba ngoon jot ñoom waa daaray Kocc suñu yaay yi ñun ñoo ngi ci seen ginnaaw. waaw xanaa kontaan ci rek di delloo njukkal waa daaray Kocc bi am intention bi. ndax lu rafet la quoi je pense que reconnaissance la quoi reconnaissance la quoi reconnaissance la ndax bu ñu toogee ba ne dañuy ñaanal euh, képp ku génn àdduna daaray Kocc ba pare rawatina ñu ne dañ koy defee ci këru Cheikh Tidiane Diop nga xam ne moo leen jiite woon defe naan loolu rafet la te ñun waa famille bi famille Cheikh Tidiane Diop njaboot Cheikh Diop vraiment kontaan nañ ci trop ah, te ñu leen di gërëm bu baax ci loolu. waaw mun nañu wax ne papa la boo xam ne déjà li koy njëkk a caractériser mooy euh, dafa calme. était calme daawul wax wax ju bëri mais tamit nitu principe la woon te defe naa ne noonu la yare ay doomam te noonu la yaree njaboot Daara Kocc parce que boo xoolee Daara Kocc tam famille la woon loolu daan wax chaque jour daan moom ñaari famille la am famille am moom ak deuxième famille muy Daara parce que boo xoolee Daara muy ba muy door sax avant muy nekk Daara bu nekk lay canadien bu xoolee ay morom la la la kii woon ay morom la woon mais ba muy commencé Daara Kocc morom yëpp dañoo bàyyi mu nekk ay rakam ak ay euh, doomam mën naa ne. kon daare koñ ñi ci nekkoon morom sax bëriwul ay rakam la bëriwoon ak ay doomam ay jarbaatam kon mën naa ne moom éducateur la woon foofu daare koñ daal dafa leen doon éduquer dafa na defe naa ne élément daare koñ même boo ko ak ñeneen ñu en nekk benn quoi te loolu lépp je pense que c'est grâce à Cheikh Tidiane Diop sa capacité waaw li ko waral mooy euh, théâtre dafa nekk dafa nekkoon ci crise quoi dafa nekkoon ci crise te loolu ñu bëri bàyyuñ ci xel te duñ ci wax euh, te bu njëkkoon dañu amone ben Cheikh Tidiane Diop Sénégal la wax dañu amoon benn Cheikh Tidiane Diop bo xamné c'était pas un simple humain ndax mom dafa mënoon dafa amone génie bu crise bu amé ci théâtre mo indi solution ndax bo xolé euh ñom ñi ngi démarré woon théâtre télévision théâtre télévision bañ démé bo jamono joj ben télévision mo fi nekkoon ñu dem ba télévision néna na dootul defati théâtre parce dafa bëri finance am amul budget am na ñu ko féké mag yi fekkee nañ ko mom mom dafa créé woon théâtre dafa nekkoon ci crise kenn chatul woon théâtre mais moom dafa créé woon benn affaire dafa amoon génie créé benn affaire maanaam ci la créé cassette vidéo yi gars di ko jaay di ko seetaan xam bu toogoon ci crise bi noonu rek théâtre day yàqu mais dafa dafa dafa dafa solution. léegi nag cassette vidéo yooyu ba ñu ñëw di continuer si moom génn na àdduna ñu génn cassette vidéo yi ñu bëri duñ ci bàyyi xel. piraterie moo moo indi woon crise du théâtre mais jamono jooju malheureusement Cheikh amul woon génie bu mën a créé muy man muy ñeneen a ñeneen amuñu ins amuñu inspiration pour mën a créer beneen affaire boo xam ne moo moo mën a moo moo mën a une solution par rapport à piraterie boobu. bon léegi yàlla def na ça se fait naturellement parce que nouvelle technologie mooy ñëw comme YouTube yeeg télévision kii yeeg affaire yi ubbeeku comme yéen ni ngeen amee ay télévision nii nekk Medina nekk ay jeunes rek tujji seen télé rap lu ci lu yomb léegi. mooy technologie moo ubbeeku ba nga xam ne léegi affaire bi yëpp ubbeeku waat na te je pense que muy daaray coach muy daaray coach junior amatuñ amatuñ lay quoi amatuñ lay dañu war a ñëwaat bokkaat ci kii bi relevé drapeau Cheikh Tidiane Diop waaw daanaka commencé nañ sax commencé nañ sax man bu may ñëw dama tombé juste koor gi ma tombé koor gi ñu ne koor gi dañuy def ay sketch ma ne bindu ma dara préparé dara mais dinaa dinaa commencé def ay sketch sax si koor gi def ko def ko def ko genre échauffement waaw def naa def naa ko si koor gi te dañuy continuer incha allah ñun moom pare nañ pare nañ loolu mooy suñu liggéey ragaluñ ko def quoi ragaluñ ko def mooy suñu liggéey ragaluñ ko def dañ koy def tax loolu lañ xam. bisimilah rahmaani rahim maa ngi leen di nuyu maa ngi kontaan rek laa def ci hommage bi. parce que Cheikh Tidiane Diop buñ ko tuddee rek daaray Kocc ngay xalaat kon nag ñoom bu ñu toogee tey ñëw ba si këram si biir famille am sargal kontaan nañu torop ma leen di gërëm maa leen di sant ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn su ma damay juum waaye bàyyiwuma kenn te Cheikh Tidiane job bu mu nelawee ba léegi ma ñu ngi may jappalé di jappalé sama njabot ma ngi nak duma mëna nak a nag il faut ma tuddu nak ko xam mom wax dëgg yalla euh, mënuma koo baña tuddu dal wa moy sen sen sen sen Mansour Mbay fu ma ne ñu nga fa kër gi mom duñu tok mukk ben diir bo xam gisuma len ñu ñew fi jappalé ma si njabot gi guddeeg bëccëg ñu ngi may jappalé ñi si des ñoom ñëpp ñu ngi may jàppale tamit dama xam ni lim lim ku lim rek da ngay juum wante ñoom ñëpp wéetuma benn yoon njaboot gi tam wéetuñu benn yoon li may ñaan daal yàlla nañu dund rek ba daaray Kocc mel na mu meloon rek ñu àndaat liggéeyaat te xam ne ñoom euh, patrimoine lañu daal ci senegal vraiment patrimoine lañu seen tur warul fay loolu rek laa amoon lu may wax mënuma maa ngi leen di gërëm di leen sant. d'abord

ba am ñu seetaan pièce bu Cheikh Tidiane Diop bindoon ñu ne leen ngeen dem semaine nationale de la jeunesse et de la culture mais da ngeen di affilier ci fédération sénégalaise de théâtre populaire et de musique mais bi ñu dem affilier ji mënuñu woon dem ci turu les canadiens de la Médina de nag ñu tudde ko daaray Kocc Barma dem semaine de la jeunesse qualifié représenté région du Cap-Vert ni ñu ko doon waxee à l'école dem semaine nationale de la jeunesse ñëpp gis leen nag admirer leen ne leen mën ngeen continuer théâtre bi bref ci gàttal boobu phase avant bi la beneen phase bi contact la woon bu feu Ablaye Seck amoon moom gisoon na waa Daaray ci ñi ñu mën a jouer moo wowoon quelques éléments de Daaray Kocc dont Cheikh Tidiane ay Tafa man ak ñooñu ñu am benn émission radiophonique bu ñu tuddee jamonoy tey à la rajo mais dañu ànd ak ñooñu à un moment donné ñu def rupture parce que nous woon and parce que jusqu'ici gis yi ak démarche yi du woon benn à la base mais nag ki daaray Kocc ak jamonoy tey ci la ñu jëkk a def première série télévisée bu tuddoon caaxaan faaxee faré yaa caaxaan faaxee léegi nag série yi comme le waxee évolué évolue évolué mais nag daaray coach moo jëkk démarré loolu ak jamonoy tey si j'ai bonne mémoire après benoît trou réalisateur bonnet nekk Thiès moo jëkk commencé am ay production yàggul touti wa Saint-Louis la voix du nord ñom Golbert N'yom ba ñeneen ñewat manam ba troupe bi am tey ko nous nak li mu promotion du théâtre au Sénégal Daaray Kocc bokkoon na fédération sénégalaise de théâtre populaire et de musique joue un grand rôle association bi ngeen di dégg tay sax mu dans 14 régions du Sénégal comédienne bu bokkoon daaray Kocc en la personne de Sën Sène moo ko jëkk démarché moo ko jëkk taxawal ak ay comé moo ko jëkk taxawal ak ay comédiens yu daaray Kocc yoo tax yaa ngi dégg Arcos dans les quatorze régions du Sénégal Sénégal bon ni ko gars yi waxee sànq rek am na ñu bari ñoo xam ne ñii jaar nañ fi jàng fi xam fi mën fi ba seen sutura nekk ci imam Atiix wax na ko sànq nit ñi

ñu nekkoon daara ko ci démb ak tey war a mën a produire loo xam ne lii population yi nañ ci bénéficier quoi waaw.